gis nañu que ne a un avocat même étranger votre confrère. Juan mhm. Branco. ne mhm. dafay yóbbu Sénégal euh, CPI. Mhm. Euh, porter plainte euh, topp nit ñi foofu aussi bëggoon naa ci am sa avis ndax lu ñu mën a jàpp la. ndax lu mu am droit la ndax plainte bi am na chance pour aboutir ndax le Sénégal nos autorités sont en danger affaire yu mel noonu. bon du ma ci bëgg sori mais je dis que ne côté timing. peut-être euh, bon li may wax engagé wul taxaw Sénégal man lay engagé en tant que professionnel mooy que mooy que le timing peut poser problème parce que pour nga mën a saisir ces pays il faut faudrait que état bi ci boppam bañ a bañ a bañ a assumer ses responsabilités mm-hmm. aujourd'hui dès lors ko wax na ko l'état peut malgré moom ouvrir une enquête et faire stopper li nga xamante ne moom mooy la procédure la donc ak lépp lu ñu ci mën a wax moi je considère que l'avenir nous dira. ah li ma bëgg xam rek mooy par rapport ak cette plainte une dernière question rek sur ça. Mhm. Euh, ndax mën nañu jàpp ne kon stratégie la rek pour faire agir euh, l'état l'état du Sénégal. waa waa xam nga du ma du ma bëgg a parce que c'est des dossiers yoo xamante ni dafa am connotation politique am dossier yoo xamante ni je pense que stratégie la boo xamante ni ay nit ñoo ko dévoilé et donc ñoom ñoo xam lan la ñuy séntu ci stratégie boobu mais li nga xamante ni mooy permettre ñu saisir ces pays je pense que ne boo demee ci statut. mais est-ce que les conditions sont réunies article sept article sept dina <laughs> laay wax. ci mhm. conditions yi mooy day nekk crime de génocide crime de guerre. wala mu nekk voilà maintenant il appartiendra à ki nga xamante ni dafa jàpp ne am na crime boobu noonu mu articuler ko démontrer ko mais prouver également que l'État n'a absolument rien fait pour euh, pour def des enquêtes ou punir ces actes-là pour que ces pays mën a recevoir maintenant à chacun d'apprécier fan lañ ci toll mais moi je dis que ne li ci kanam rawuli bët. il y l'état d'un côté il y a l'opposition de l'autre état yéen bu ngeen jàppee ne pas yéen waa Ousmane Sonko jàpp ne c'est l'état qui est responsable l'état aussi pense que c'est l'opposition par rapport au discours véhiculé euh, par rapport au soutien apporté à à ki nga xam ne mooy boobu maanaam vous aussi euh, xëy na bu fekkee état def na liggéeyam normalement l'opposition pourrait être inquiétée. waaw moi je considère que lépp day delluwaat ci état parce que am na situation bu yoo xamante ni bu amee cim réew le premier responsable c'est l'état et je considère que ni li nga xamante ni xew na fi fan yooyu noonu la responsabilité la, la responsabilité la responsabilité de l'état est une responsabilité entière maintenant li si des de principe est une responsabilité de principe li si des comme ni niñ ko annoncé ay enquête rek moo ñu mën a leeral kan moo def lan ak kan moo deful lan mhm. mais on considère et on constate que y des actes yoo xamante ni am na fi et actes yu warul am dans un état comme le Sénégal donc on attend lan mooy doon conclusion enquête yi mais ñun nous dénonçons en tout cas les violences yi nga xamante ni xew na ci dëkk bi et de quelque bord que violence